ara ehlu birig ya la yenn yi kenn du ko def kor sama gars yi comme dab combat bi diggante ehlu birig ak ngaaka blende jeexagul bu leen bëgg a comprendre lépp li nga xamante si nii ara tontu na ko ngaaka blende benn par benn te dara du leen ci rëcc te lépp ci code laa leen koy tegal parce que xam ngeen ma mënoo monsieur le souligneur topp leen ma ngeen déglu ma attentivement ara loo teg mbay yore tuuti bëgg tëti as bu na shaatatat ara eh ara li nga commencé nii lii lii baaxul de lii bu ko Fadel déggee du ko du ko neex de ah dem expliqué woon naa leen lan mooy cici mu ne ko yore cucu cucu cucu ba pare bëgg cici waaw cucu boobu xale yi ñoo koy yor boobu xale xale yi soog a juddu yu góor yi damay sega xam nga fii dafa am ay mooy de dix-huit ans moo tax wax yi foog ma koy xaw a woon daal pour que xale yi bañ a comprendre li may wax waaw waaw bu leen xamul cucu xale yi xale yu ndaw yi ñu soog a judd yooyu ñoo am. munoo yor loolu ba mu bëgg a ci ci moom ba mu lekk moom munul lekk de. et joxe dépense su kër gi gérer bi moo gën. wóo non aral li mu ubbee son bi lii nii jar na ay milliards joxe dépense su kër gi gérer héritage bi moo gën loolu maanaam dafa bëgg wax ni kuy joxe dépense xam nga ni ki gérer héritage famille bi kooku moo koy ëppale. koo bëgg wax ni ko maanaam yow man ngaa àngu wax yooyu noonu mais bu ma ñëwee ñëpp fàtte parce que man maay diriger. yaa ngi ci Game of Thrones maay Jon Snow jiwee mooy le nord. quelle métaphore yéen ñu comprendre lul fii li Ara wax Ara nee na ko yaa ngi ci Game of throne hmm? bu fekkee siraan ngeen série Game of throne. nee na lépp nee na ngaa ab de yaa ngi ci Game of throne. maanaam yow da ngay jouer film ah bu fekkee yaa ngi ci Game of throne. man maay Jon Snow kii mooy Jon Snow ah daat ni ko jiwe mooy la noor ndeysaan Jon Snow bokk na ci personnalité euh, personnage fictif yi nekk Game of throne. yi gën a siiw mais moom moo nekkoon roi du nord comprendre ngeen ci ci film Game of throne. aradaan ni ngaa ko Blindé yaa ngi ci Game of Thrones man maay Jon Snow jiwee mooy la noor mooy moom maanaam bu fekkee géejawaay mooy la noor moom aara ëxlu birig moo nekk roi du nord yàggaram ba pat ci rab ku mën rab du jël rab teg ko dën rab ci génération gën maan moo gën ba ci gën moor génération euh, mo génération gën moo gën ci gën moor trois génération rab yi la arab boole xam nga rap Galsen boo dee xool trois générations la bi mu commencé am ba léegi trois générations la muy old school yi new euh, ki euh, underground yi ak new school yi moom mu ni moom ci trois générations yooyu noonu yëpp la rap Mollah Morgun gën xam ngeen ko gën maan xuma xam ngeen ko moo gën euh, nu ñu tuddati gën moor benn booy la mooy booy bi temps yi génn na benn projet bu dóob booy bu mën a rap baakee alxuraan mu boole ko ci maanaam trois générations yëpp arab moom nee na daf ko rap kon Baba Ndiaye du moom moo koy jaaxal nee na. baaba déglu naa sa son bi son bi dóob. Hmm, ara nag yaa ngi bëgg a saytaane yow nuñ lay clashé nga naan son bi dóob. surtout parti yi nga noppee bi nga tëjee sa gaat. ay eh, foofu moom ngaa ko blende lu la wax parti bii lay wax. xaar leen ma jëm leen waxal ngaa ko blende li mu wax ci parti bii lii ma xool ba xam. fuck you. ay. may naa la saison 2 tey ma ñuus la deux fois Baba Xaasimu Ja bureau de vote bu mu dem am deux voix. <laughs> Eh. eh ara ara ara li manque de respect way Baba Dia ak li mu ay fans nga nan ko Khassimou Dia sama gaay ki kii mooy Khassimou Dia. chers compatriotes, le 26 février dernier vous avez fait preuve de maturité. père jéggal du père jéggal du yow bureau bo am deux voix nga naan am comme deux voix nga am mom do meuna a bokk ci suñu waxtan bi. élection 2011 Khassimou Dia dafa déposer woon candidature pour lui fal ko président kii de président yaakaar la boy après après Abdoulaye Wade. mais Xaasim bureau de daawul am ay yu bëri ara nga ni gaa xam ne booy Xaasim jaaw naa ah. ku la pik pik ko bul am temps wu baatal na ngaa xam ne ku la pik pik ko bul am temps wu baatal parce que Pape Sidi ak ngaa xam ne la fois passée bi ñuy def live ngaa ko moo wax lii bu fekkee Eric pare na wala ñooñ noonu di nga xamante ñooy tëgg affaire bi la dë pare nañ man kay yaa yaa ko tere neex man boo d'accord léegi maanaam ci tënk Pape Sidi Fall bi ñuy def ak live ngaa ko belende daf ñu leen sa classe bi yow ak ahlu birik nañ si meeg ma ni maanaam nañ ci wut xaalis defal leen ring bu fekkee pare nga ngaa xam baleen dañ ni ko pare naa bu la neexee suba ñu def ko aradaat ni ko ku la pig yamal ak moom ci pig après mu tegal ko ci lii xanaa occupé woo mbay xanaa defoo dara eh, eh, eh, ay ay kii ara ara yow dafa mel ni ngaa xam baleen da lim la wax ci sa bitig bi toogal job bi da dalaa dalaa metti de ah, nee ko maanaam ku la ko bul am temps wu batal xanaa occupé woo mbay xanaa defoo dara maanaam ñoom dañoo jàpp au moins au moins ñoom am nañ boutique boo xamante si nii sax ñu ngi fay toog di liggéey kon temps batal beek yooyu noonu du doon suñuy mën daal parce que ñoom ñu ngi liggéey au delà de rab bi. même ba sax kaana la mais des fois mu doon xaadar. mais quelle écriture même basse comme kaana basse kaana la mais des fois mu doon xaadar bàyyi ma leeralal leen ko maanaam kaana basse xam nga danaan kaana basse maanaam moom mooy basse de boos nee na basse kaana la. mais yenn saa yi ma doon xaar dafa am benn série boo xamante ne nii Bass mi ngi koy joué air lover mais Bass ci sa ci série bi xaadar la ci tudd. ah hein. mais au delà de so de de loolu noonu même Bass kaana la mooy même Bass yenn saa yi day teg metti mais parfois mu doon xaadar comme xaadaru laayeen bi kooku c'est spirituel. maanaam mën naa nekk kaana mais yenn saa yi mu bàyyi njar affaire yi. baaba tàng chaine la baaba lay jara. moo tax mu ne ko baaba tàng chaine la baaba lay jara lay jara xam ngeen ko seetaan ngeen ko moom day mer rek moom moom moom day mer rek laay lu mënti am moom day mer <laughs> moo tax mu ne ko yow xanaa yenn saa yi doo bàyyi mu sedd sax bàyyi mu tëmb. mais lu xew nga mer. mon excellence sama livre ngay waatee sa investiture. oh noo mais sama gars yi nag franchement bu dëgg rek desee non franchement ara texam yi. ku ko déglu bu fekkee xam nga toq musique sama genre gi toq musique dalay faj son excellence sama texte ngay waatee sa investiture loolu mooy maanaam par exemple président ak président bu ñuy bu ñuy joxante ay lenge ah président bii nii day day day lire investiture beneen président bi comprendre nga balaa mu koy euh, jébbal lenge yi mun ko yow bu fekkee yaay président man maanaam sama bi sama écriture livre moom ngay jiitee sa gouvernement alors mun nga tooñaa ah? tolloo ma catuwee boo ci tollee yaa may defal pédicure. wuyu ma ara ara nga xam leen ne magu jàmbur la rakku jàmbur la nijaayu jàmbur la tonton wu jàmbur la ba pare teg ci jaba jëkkëru jàmbur la waaw nga naan ko ay <laughs> son excellence tolloo ma ci catuwee te boo tolloon ci catuwee yaa may defal pédicure yenn manque de respect yi kenn kenn du ko def mag nag li lii moom baaxul moom. baaba kulun buñ kulunee budul in vitro di hybride. chut ara de lii la woowee ngaa ko bële de lii kulun nee na comme comme comédien la waaw. fo international local. foo international terap gal local parce que ngaa xam leen de ci classe moo ko woon lirikal moo waxoon lii. man ni asamaan la internationale. moo di woon wan lirikal man ni asamaan la internationale. arandi ko yow naka ngay internationale alors que rab bi nga xamante si nii moom la ñuy consommé rab local la moom may ngay ñuy jaay ak hamburger local yi yooyu seetlu lii da lay wan que ni la rappeurs yi ñoom ñëpp dañuy dégloonte balaa ngay xam ne ku nekk ngi déglu sa morom rek classe jot balaa ngay alxuraan. boome classe def ko rap bu dee mbalax dee ko vocal. Hmm, hmm, hmm. ay wax lu sew la sama yoon nekku si sama yoon dajay ne. daaw yaa raboon day nan nga raamay pou wuyu ma nag wuyu ma nag ala ahlu birik yenn yi moom ay dépassé la man mi sax du ma ko nangu nag parce que fan sa ngaa xam ren nii ñoom dañoo bëgg Baba Ndiaye li muy def dafa neex bëri ay nit yu koy topp nga xam ko daaw yaa raboon day ren nga rabaat hmm, non national la ma ñaanaalee la ci baaru pip garaawul pip bi may naa la ko parce que suma bro ko quoi waxal nokku national la ma ñaan leen ci benn baaru pub ku bëgg sol lu baax jógal demal raara loo wax tudd si dërëm bëgg nga taw ragal taataa eh, eh, eh, ara attention ara attention ara pub nga ma ñaan ma may la pub léegi la moo tax nga naan ngaa ko belende loo wax tudd ci dërëm bëgg nga taw ragal taataa ah nee na ma maa ngaa ko belende xam nga ku muy clashanteel daf laan la euh, bokk na ci yim lay wax muy maanaam gars yi amuñu moyen yoo xamante si nii mën nañ ko topp ci rythme de clash bi muy demee mu ni ngaa ko belende yow loo wax tudd ci dërëm bëgg nga taw bëgg nga xaalis trop ragal taataa kooku maanaam danga nga koy jëlee deux sens bëgg nga taw ragal taataa mooy maanaam bëgg nga dërëm waaye ñemewoo jóob wax yi ñaaw na trop ah. ne mën nga foo neex ñu bëri mais neex ñëpp mën tane. Hmm, ñaaw na. Hmm, hmm, ah, suñu fi bàyyi tëf tëf noo national duma national noo ñaari yo Dua ñaari yo duma dakaaroon maa dakaaraat xanaa duma saf dakaar ah mbir Dakar gini, ñu ci wax nii moom baaxul nag ah nga kilifa la kilifa la nga jàpp doomu jàmbur ji du Dakar. rek bàyyi bàyyi li ngay def boo safee dakaar woon ko sa soxna doo bàyyi li ngay wax ci soxna yi xale yi duma géeje waaye ma dakar aku ya yeewoo dakar lii lii de mooy jël risque wax say soxla Ara waxna ay waxam de mom fi tol ni da daa genn na mbour dani du moo way ku yeewoo Dakar mo la dàq manam li lii <laughs> jaxase national la dama bëgg yeen rapport yi may déglu yépp ñen xam ara clash na leen genn leen ko son tay tay ñi nan ay nga ayo fenn ñom ñi ngi bakkar c'est capital moy mbay ndokkooru ara moy <laughs> d'accord d'accord d'accord Dakar. sa capital mooy ndëkkëru ara mooy Dakar am na benn bu fi seetaanoon temps passé loolu yàgg na je crois ça doit faire deux ans dafa taxawoon ci ci euh, ci ci ci gi ci ab tante la par exemple ñu dëkk ay ñoom kër Mbay Faal xo ay Rufisque xo ay ay kër Masaar ñoon ñoy dëkk maam ñi dëkk ay ñoom norfa ay Ouest ay almadi ñoon ñoy Dakar mo lu birik daa purkan pour kañ ngaa ko blende nee na ko yow sa capital muy ndëkkëru maanaam yow buñ doon buñ doon xool fan nga positionné yow baali yee nga dëkk moom mooy dakar bu mi ay almadi ay norfa ay ah nga xam ne daa am loo ci sànni papi arrête son excellence kenn du ko yab ci saret son excellence wala le malheur de son excellence oh bi bi bi bi xam nga moo gën a garaaw ci classe yu tontu kii ahlu brick bi mooy ahlu brick tontuwul Ngaaka Blindé la ci son bii rek da koo dajaleel yim yi yim defoon ak ñoom wan lirikal fii Ngaaka def ni son excellence euh, ara ñëw ni ko son excellence wala lëmbalal de son excellence boo leen comprendre loon loolu lii la woon lii Ngaaka Blindé buñ ko laajoon li ko gën a métti ci carrière man xam naa ni dina wax lii de le fait que bu demoon ci euh, ci ci président Macky Sall ñu defoon meeting mu mu fay fecc parce que rapport bu koy classe tudal ko li li ñaaw na son excellence mbay wala lëmbaloo sa de son excellence dal ni ko wat mbay rapport meeting mbay rapport meeting son excellence wala lëmbaloo de son excellence mbay man la seytaane yi xaar kenn la wul ni agent sagam eh ara ara li mom suñu sar gi ngay ton ñun ngay ton te ñun toñu ñu la ñun dañoo tok fi man mom dama tok fi pour di souligner rek bëgg lu leer wa askan wi rek waaw mais waroo fi nekk li ñu wax lii man la saytaane yi di xaar kenn nalawul ne agent sagam agent sagam xam ngeen lim ñoom ñoo ñoo yore sécurité xaalis beeg yooyu noonu ñooñu duñ nalaw fuñ nalawee ñooñu buñ nalawee réew mi toj moo tax fi mu toll nii man mi souligné noonu laa sonnee parce que damay toog suba ba ngoon di xool lu ma war a wax lépp ngir bëgg ngeen kontaan maa sonn nag. naka jege balaa xaru wër leen ko ana baaba ayoo. naka mbokkam jege balaa xaru wër leen ko baaba di leen baaba moo fi waxoon lii. bu baax a baax shout yi Mata doon defoon ayoo non mais mais mais genre classe bi si instauré quoi maam arab ah, da doon tontu ngaa ko de ci son yi mu defoon daaw ak ren yëpp la boolee di ko ci tontu benn par benn non lii c'est nice. man sama yoon newu ci de dutewu ma waxal ak fans yi. ba tey da ni arab man sama yoon newu ci. dutewu ma waxal ak fans yi. ki nga may tëkkaleel mooy li ngay waddal bu ngeen puubee. eh asbunallah ki nga may tëkkaleel mooy li ngay dal bu ngeen puubee. Hmm, loolu moom xam ngeen ko yéen yëpp di rafetul ah. bàyyi ma Baba Ndiaye te ngeen indil ma keneen kuudes. keneen moom de ara ah, ah, ëxlu birik moom nee na pare na ci Baba Ndiaye quoi moom parce que moom niveau level yi dañoo wutee wax dëgg fa yàlla moom moo ko wax moom ara damay jottali moom moo ko wax nee na indil leen ko keneen ku des. pour ara maamu alburi pour ma nokku leen foog nee leen ñu mat foog. Ah, ara yaa ngi dugal ci coow li mbër mu bëri buri Alboury loo waxoon. yoon sax may xëy ak benn nit. Alboury ñu bëri sama ndax maam ndax maam. mu ma ñëpp ko xam kenn dootu ko kenn moo waxoon lii ba mu daanee nee na maamam du yoon moom muy bëreeg benn nit déedéet maam moom nee na fi mu toll nii dafa xeeb ngaa moom du yoon muy bëreeg benn nit nee bu maam ay nit daan daan bàyyi bañ ma diis mu boole leen ñuus mais ara lutax nga xeb grand bi ara classe du lek du geumentu ah ara neena classe du lek du geumentu kon de ñun de man suñu ñeer bi de xala war na tok xaar yeneen ya son ah wa tim top ki bi sujet yi top leen sujet yi rek ja son de waye di ngeen son tamit de ne la may duggal pu ngeen wadal tubay ma duggal bu ngeen bëggee gisee fu may suus fa oh mais wax bi ñaaw na wax bi moom dafa ñaaw parce que neena ngeen wadal tubay bo leen bëggee gisee fu muy suus imaginaire ndax naka laa ko mën a expliquer maanaam xar xar xar xar mu kii xar mu jigéen bu taxawee xar mu góor buy suus suus yee ay xale dañ fee nekk. Hmm, hmm. engagé mooy arrêté arrêté dalay kaañ baaba sa ñàngal safuñ ku la jàngal ñàngal liiru jaan. bul dëgg c'est pas vrai c'est faux munu ko. liiru liiru bul mer bul mer bul mer billaay ara day day métaphore ci yow rek waaw day métaphore rek ngaa xale kaa ñaare waare foofu noonu. raw naa la daaw raw la ren dootoo ma daab ndelu baaba ndelu Ahmed Cissé bu lekk doo ma daa. Ah, Ahmed am looy commentaire ci loolu wala dangay bàyyi mu sedd. diggante Ngaaka Blindé mi ak eh, Akhlou birig da nga ci war a taxaw da ko war a xeex. ndaxte Ngaaka bi mu génnee nit ñi foogoon ne na rappeur la mais bi Akhlou Brick ñëwee <laughs> ndeke kuy compter mag ñi doo ci boole yàlla <laughs> paroles yi dafa waaxire ba pare baatine <laughs> ba pare caay-caay. du samay wax waxi Ahmed Cissé la ara continuer mbay toogal mu bañ déggul wolof kon bay joodoo bàyyil aara ne ci jàmm ay ay mbay nooto Sadio Mané may ko gàmm jàpp teewul baaba jokk. Sadio Mané may ko gàmm jàpp teewul baaba jokk xanaa Sadio Mané boobu fi mu comme que dangay métaphore mooy mooy matadi.

nee na ko maam Ndiaye mel ngaa xam belende saabu mais wóorul tam ko xam yéen xale yi bu leen xamul luy kii bu leen ko laaj seen seen seen bu leen ko laaj seen yaay de bu fekkee amoo mag bu góor bu leen miinanteel hmm? kan ngeen ko war a laaj sax war xaw ma sax ko war ko war a laaj yow tamit ara ngaa xam kilifa la ay waaye wax ji jaaw de lii metti na ma baa ngaa xuraan duma national noo ko ñaari yoon duma ñaari yoon. mais blague à part franchement quoi man xam man man nay neex rek man moom sama yoon newu ci man faruma ak ngaaka faruma ak ahlu birik sama yoon nekku ci man je suis là seulement pour mes pour les gens qui me pour que ñëpp di kontaan te wax dëgg ngaaka Blindé ak ahlu birik non yéen a ngi neexal rab bi quoi parce que dañ seetlu que ni depuis seen classe ba ba léegi rab gaaseen dafa dafa slow moom quoi maanaam amul bruit amul actualité te à chaque fois ngeen ñëw da ngeen di ajaat affaire yi te nag ara neexul ba neexul mais tontu bi mu tontu ngaa dafa aj niveau bi écrit lyricitement hmm, dafa aj affaire yi xam nga moo gën a bon ngay saaga nit ki te saaga woo ko maanaam nga xam ren ne mën nay saaga arabe bi ma wax wax yoo xamante ni day choquant xale bu ko digg day xam ni kii lii la war a wax mais ara. day saga nga xam benen diko kàll ara ya mën wax ju mot ah ya mën wax ju mot li nga wax xam benen di fii yep suñu jël la wax lay bon bo de japp do mako jàmbur ji euh, tonton jàmbur ji ay jàmbur ji jëkkëru jàmbur ji diko wax ay wax yu bon rek ta level bi aju da rek aju da bu ba ba bu bu ba a baax nak <laughs> nañ toog xaar peut-être fi ak guddi dara dina am baba jaari lu la mënul de son excellence bay rapport mythique te arrêté lu birig li ma leen doon wax dégg nañ ko parce que maa leen du wax ne nga xam de à chaque fois buy kalaasanteeg kenn moom dafay intelligent day def ay son yoo xamante ni day commercial maanaam son yi day des parce que da ngeen di seetlu nga xam de bu defanteeg kenn clash nii ah moom son yi mën naa am ay 2 millions de vues ki muy kalaasanteel am ay 1 million de vues te loolu noonu li koy waral mooy le fait que mu ciy def ay affaire yoo xamante ni après day tiktokable ak yooyu noonu ara ëxlu birig dégg nañ ma bu baax nii la nay neex rek de je suis le souligneur te sujet yëpp laay traité. bagarre que ça.